ba léegi bàyyi gisuma kenn. fës. booy waaw da nga taw fexe bàyyi. heureusement sax waaw bàyyi la fay demee nag ku ne comprendre nga bàyyi waaw dañ ko conseillé yow kon comprendre nga dëkk noonu la taxawee. ma lépp tuuti rek tuuti rek bàyyi est-ce man dama ñëw dugg biir bu bàyyi sax bàyyi waaw xam du yoon du yoon de surtout mën a yow surtout a yow baax yàgg a yow lépp a am ci àdduna moom na moom loolu moom lu am la gaa lu leer lu leer mais cool kenn du la tudd xaalis lañ gën a sécuriser que doomu a mi def nii àdduna ngi nii bàyyi kii déggal mooy ne sama xarit la n'est-ce pas gis nga l'argent bi ñu boole àdduna mu ngi nii seet